bon asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu samay soppe di nuyu ñëpp di nuyu àdduna di nuyu ñëpp di ma seetaan di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax a baax macha allah bon maa ngi tudd Madior Ndiaye maa ngi nekk asalem Thiali euh, côté école Jaxaw en face guy gi bon maa ngi dugg si métier bi depuis 2012. nekk ci sama turando rue 10 Dakar Amitié 2 fa laa waaw ñu ngi koy préparé bu baax a baax baax a baax ak grand Gossou ak tonto Assane ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax a baax macha allah. non non même pas c'est la première fois. bon man sama profession moom si góor la. waaw mais depuis ba mu ñëwee kees ba léegi maa ngi ñëw ay jigéen yu toj daal waaw maa ngi ci def yu garaaw. non même pas musuma voyager waaw. non même pas. yu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw. waaw a yomb sax parce que man fi ma jàngee métier dafa doon loo xamante ne nii ñooñu xamuñu leen luut métier bi waaw xamuñu leen lu métier bi ba ñu jógee dëkk ba métier bi nan jàng ji te man tamit ba ma bàyyee jàng moom laa dem jàng ji. Euh, maa ngi ko jàngee rue 10 amitié 2 nan problème buñ tëddee duñ nelaw <laughs> lu leer laa la wax dinañ gis ay modèles yu toj yoo xamante ne nii pour ñoom euh, lii nii mënut a am Sénégal te bien sûr que ñun jàng nañ ko bu baax a baax a baax a baax. waaw am naa ambition boo xamante ne nii pour nit ñi xam kan mooy Madior xam sama place fan la xam tamit li may liggéey mooy lan waaw ndaxte boo nekkee ci benn ruq rek ñu bëri mën na la bañ a xam. même boo nekkee sax sa biir néeg di ñaw amaana yii nii tamit mën ngi si bokk nit ñi xam la waaw xam li ngay ñaw li ngay def lan la ak naka la daal voilà loolu loo tax ma dugg si samay clients yi moom li ma leen wax ñoom ñëpp nag ñu ngi koy préparé fii ba Touba fii ba dakaar ku ma si woo tout le temps dama naan ko noon booy yaa ngi préparé le 15 octobre te le 15 bii nii sama sañoon man mu nekk le 18 parce que le 18 octobre mooy sama anniversaire waaw kon lii kon du yomb. du yomb même pas. <laughs> waaw gis nga damay dem si événement bi am ndam. ñëw préparé ko ak sama soxla. ndam bu baax a baax a baax kay. incha allah rabbi bu neexee yàlla. da ngay nan ma xaar. nan ma xaar bu baax a baax a baax dinaa indil ay demi saison yu toj. homme femme et enfant. robe de mariage lépp laa leen ñu indil incha allah rabbi waa Thial yi. environ Thialy jaxaw Medina Fall ñëpp ñu ngi leen ñu woo ngeen génn soutenir seeni doom soutenir seen i jarbaat soutenir seeni i rakk parce que métier bu buñ ci nekkee yàlla ak ñoom la waaw yàlla ak ñoom ñoo tax ñuy góor góorlu ñoo tax ñuy liggéey ñoo tax ñuy dem di ñëw bañ a ñaan tamit waaw nañ ci ñëw jàpp mobiliser wu man de xaw ma kan de mais buñ deful nànk ñi ma ko sékkal stade bi dama koy feesal incha allahu rabbi segam neex na yàlla ku farlawut doo ñëw ku farlawut bunt bi sax doo si am sax accès ku soxla billets yi mën na ñëw si atelier Madior sopp sëñ Babacar si day fépp si whatsapp beeg youtube beeg lépp fépp laa koy dugal incha allah rabbi waaw sama dernier mooy rek mooy ñu dugg si ak jàmm salaam génn si alhamdulilah rabbil alamin ndaxte lii moom tonto asan Sall ba mu ko euh, xalaatee ba def ko man de dama see ndaxte lii rek laa doon wër man mosuma see bokk xawma nag ni muy demee mais incha allah rabi ñoom ak ak euh, grand su ñu ngi ñuy teg si yoon te incha allah rabi dinañ si def suñ suñu kémp laay kàttan ba mu réussir ak jàmm salaam may nuyu gars yi nag yi ma ko sekkal ne saison d'or bi mi ngi nii waaw <laughs> kay jaajëf